بسم الله القابل الرحمن الشاكر الرحيم ذي الأزمان Faydu Akabir Salihin di seen YouTube bi ngeen mën toppee bépp liggéey bu jëm ci liggéey Cheikh Moustapha Diop Al Koki ngeen mën ñoo am ci Facebook bi ci Madrasatul Qadimiya subhaanahu min raafi'in shakuuri a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu wa sallama wa baaraka alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin wa aalihi wa sahbihi wa asnaa xadiimihi wa ummatihi ajmaciina ilaa yawmi ddiin mbokk yi ñu ngi ubbee suñu wax ji gannaaw bu ñu jiitale nuyoo ba gën a sell di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñuy wax ne yaa ayuha alladina aamanu in jaakum faasiqum bi naba'in fa an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbixu ma faaltum naadimin ci turu daaira faydul ghani al bi nga xam ne moo lëkkale taalibe cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al kokki yal na yàlla sàmm ko te aar ko waaye ci turu mboolem soppee cheikh Mouhamadul Moustapha ak waa këram ñu ngi jooyal nuyoo ba gën a sell te gën a matale jëme ko ci saaxibul fadil al aalil maqaam a cheikh Mouhamadul Muntaqa yal na yàlla sàmm ko te aar ko dëgëral ko te dimbali ko. waaye ñu ngi jooyal nuyoo boobu jëmme ko ci seex Mouhamadul Amin Baara Diop di xalifa seex Ahmadou Nourou Diop ñu gën koo xamee ci sëriñ Manaar Diop waaye di ko jooyal ci sëriñ Taala Diop mi nga xam ne mooy xalifab seex moor Diop njëkk yal na yàlla sàmm leen te aar leen waaye noonu la ñuy jooyal nuyoo bu sell boobu ci saaxibul umda a cheikh Mouhamadul Moustapha Diop al kokki yal na yàlla dëgëral ko dimbali ko yal na yàlla sàmm ko te aar ko yal na yàlla e, dolli tawfiq ci liggéeyam jotal ko ba fam ko bëggee waaye noonu la ñuy yeggale nuyo boobu ci mboolem murit yi topp seexul xadiim waaye di ko joyal ci mboolem jullit yi fu mën a nekk ci kaw dénd bi gannaaw loolu bokk yi ku ne xam na ne wuute suñu boroom moo ko moo doomu aadama ci seenu dund ci kaw suuf amul wenn xeet wu nekk ci kaw suuf woo xamante ni mën nga mucc ci wuute googu ndax suñ boroom moo ñu ko moo moo waral muy wax ci alquraanul karim ne walaw shaa allahu la jaalakum ummatan waxida wala yazaaluuna muxtalifin bu neexam suñ borom day mu def ñépp wenn xeet waaye du duñu deñ di wuute mukk loolu kon daañu ci dégg suñu borom bennoo la ñu dig digal muy wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu waaye suñ boroom digaluñu ñu nuroo kon wuute googu moo ñu ko binde mënuñoo ñàkk wuute suñ borom waxaan na ci alquranul karim ba tey ne wa ma kaana annaasu illa ummatan waxida faxtalafu walawla kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya baynahum fi ma fihi yaxtalifuun kon mu mel ni loolu dogalub suñ borom la bu jiitu woon ci asal mënuñu cee mucc ak wute nag ci diggante ay jullit rawatina borom xam-xam yi nekk ci biir lislaam ku ne xam na ne xéewal la gun suñ borom xéewale diine ji ak lislaam ba nga xam ne wuute googu lu nuy jariñoo la waaye waruñoo lor ndax siiw na ci waxi ñu jiitu woon ci nit ñu baax ñi ne ixtilaaful ulama i rahma wuuteeg jullit ñi kat yërmande la ndax dina mën a may nit posé su mën a awee nii nit aw am posé mën a aw feneen te du tee kenn ku ne la ngay diir nga jot ko ngir loolu nag moo waral jullit bu am xel am yitte ju kawe dafa war a profité saa bu wute amee ci digganteem ak moroomam saa bu gisee loo xamante ni wutale na kook moom mu xalaat ci xalam ca waaye warut a taxaw jël loolu def ko jumtukaay ngir taxaw di saaga wala mu jëmale kàddu yu jaaduwut ca kooka ba loolu di jur ak noonoo goog fa muy mujj du gën ci ñun diggante ay julliti kese rawatina ay bokki taalibe bokk yi jataay bi ñu daje fi tey li waral ñu daje ko ku topp jamono ji ñuy waxe réseaux sociaux yi dina gis ay xale yoo xamante nii danoo jug laxasaayu takkaayu ngir jaamaarloo ak ñenn ci boroom xam-xam yi te kii tax ñu jëmale wax ji di kii ñu jan lool tax ñu daje ndaje mi tey di Cheikh Mouhamadul Moustapha al Diop al Kokki te loolu loo seen wax yooyu mooy ñàkk ñàkk xalam ay kàddoom ñàkk ko settantal ba mën caa jariñu ña yooyu nag saa bu amee ci diggante ay rawatina diggante ay taalibe dina waral ci suñ biir loo xamante ni bokkut ak la nga xam ne moom lañu suñ kilifa gu tedd ga tànnaloon di mawlaana cheikhul abdul xadim mbokki jullit yi buñ sukkandikoo ci réseaux sociaux yooyu loolu ñu ci siiwal di ay waxtaani cheikh mouhamadul moustapha Diop al yi nga xam ne ñenn ci bokki taalibe yi dañ koy dagg buñ ca daggee lañ cay dagg day nekk lu sensible loo xamante ni buñ ko dugalee ki koy déglu bu toqee ci noppam day jàppe ne wax ji nii la jublu fekk wax ja jublu jubluwul noonu balaa moo mën a xam dëgg-dëggi wax ja dafa déglu wax jooja la ko jiitu ak la topp ca ginnaawam ngir mën a xam dëgg-dëggi wax ji te bi gën a siiw ci wax yooyu nga xam ne doon nañ ko siiwal ci réseaux sociaux yi mooy waxtaanam wi mu mujj amal ci université see Anta Diop jëme woon ko ci wirdul maxuus ak xasida yi ñu dagg ca loo xamante ni ku ko déglu di nga jàpp ne Serigne Moustapha day tere ku jàng xasida fekk lam jublu woon wax jooju soree na lan ca jublu nag mooy gàkkal ab deram ak jéem ko waxal loo xamante ni wérut loolu moo waral mbooloo mii di daairat faydil ganil nii ak soppee cheikh mouhamadul moustapha waa këram ñuy woo nga xam ne ñi leen teewal mooy ñii teg nekk ci jataay bi tey jii ñeneen ñi nga xam ne it nekkuñu ci biir réew mi nekk bitim réew am na ñu leen teewal bu soobee yàlla daa ngeen janloog ñoom ci euh, image yi ñii yebal ñenn ñu leen teewal ñu nekk ca Amérique waa Italie it dinañ yebal ñu leen teewal waa euh, Angleterre dinañ am ñu leen teewal bu keroogee bu ngeen di seetaan image yi di ngeen ci gis mbooloo yooyu yëpp. ñu xam le ne foofu yëpp ay taalibe Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop Alkoki ñu ngi nekk foofu mbooloo moomu yëpp nag ñu ngi àndandoo di woo waxambaane yi rawatina ci yoonu murit keneen ku dul ñoom ku nekk feneen ñu yulli war ma ji gën a tedd jagleel ko boroom xam-xam yi boroom xam-xam yépp nag sans exception waaye ñu gën caa beral cër bu duun ñi nga xam ne ñoo càllaloo jóge ci njaboot ak seex si nga xam ne ñoom la sëriñ Touba seexaloon waaye ñi nga xam ne ay sëti Cheikh Ahmadul Xadim lañ di sëriñ Touba. te ku seetlu Cheikh Mouhamadul Moustapha ci ñaari wàllu yooyu da nga ko ca gis mu laq ca cër bu duuna duun ndax bu dee xam-xam kenn nattablee tut xam-xamam ci réew mi ak bitim réew waaye bu fekkee ne ko càlloo ci seexi sëriñ Touba yi ku ne xam ne ne sëriñ Manaar mi nga xam ne moo jur way juram ci mag ñi sëriñ Touba seexaloon la bokk te bu weesoo sëriñ Manaar sax euh, Cheikh Ahmadou Cheikh Makhtar Ndoumbé Diop mi sancan daare kokki ji nga xam ne mboolem luy diine ci Sénégal buñ ko tuddee tudd ko kooka it ca moom la càllaloo càllalaa seex Cheikh Mouhamadou Moustapha ca Cheikh Maxtaan Dumbe Diop kokki moomu ci la càllaloo loolu moo waral ñu yéene leeral lenn lu néew rek ci kan mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop al kokki moom nag Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop al kokki mu ngi doon doomi Cheikh moor Diop njëkk Cheikh moor Diop njekk di doomi sëñ Ahmadou Nourou Diop ñu gën koo xam ci Serigne manaar Diop. Serigne Manar moomu moo nekkan murit bu mag ci kanam Cheikhul Khadim Seexul Xaddiim gërëm ko seexal ko jox ko ndigal ci mu yar di yéege Seex Moustapha moomu it mu nga càllaloo ci niñ ko waxee woon léegi ci sëriñ Mataan Ndumbe Jóob kokki mu ngi jànge alquraanul karim ci sëriñ Mor Mbay Siise ci daaram ji ci njaarim waaye ba mu jógee foofu ci njàngam alquraanam mu ngi wéyalem njàngam ci daaray sëñ mu dem mi nga xam ne am mu fassir bu mag la woon te ñëpp xam ko ci réew mi rawatina ci muridiya gi bam jàngee foofu ca daara yi Cheikh mu dem ba jóge fa ci la dem ci mahadu durus al islami gi nga xam ne Cheikh Ahmad Mbakke Gaynde Fatma moo ko sosoon mu jànge fa ba am fa diplôme yam fa war a laq ci noonu la laxasee nag gàddaay réew mi dem ca fa ñuy wax jumhuriyal misal arabiya muy Égypte bam demee foofu dugg na ci benn faculté bu nuy wax kulliyatu usulu diin kulliya boobu ba fa duggee muy faculté boobu mu ngi deman ci département bu ñuy wax qismul aqida wal falsafa foofee ca la jànge ba am diplôme bii ñuy wax licence Cheikh Mouhamadul Moustapha yemut ca loola ba mu jeggaleem njàngam dafa dellu fi ci fii ci réew mi daal di taxaw nag taxawal xam-xam taxawal diine taxawal Serigne Touba. loola waral mu participer ci ay symposium ak colloque yu mag a mag yoo xamante ni international ci àdduna bi rawatina ci réew yi ñuy bëgg lim muy Égypte ak ci Sénégal gi ak ci Mauritanie gi Cheikh Moustapha borom xam-xam la taalifkat la gëstukat la day gëstu ci xam-xam bi ñuy wax philosophie te ci la spécialisé wu muy al falsafatul islamiya waaye ab gëstukat la ci xam-xam bi ñuy wax ak tasawuf waaye ab penseur la ci yoonu murit wi ñu nekk am na ay liggéey yu baree baree bari yu mu amal ci xam-xam bokk na ci ba ca gën a siiw te ñu gën ko xam muy al umdatu fi nadariyati al xidma al aliyat wal al al idéologie al badila muy wax ci wàllu xidma euh, xidma bi nga xam ne ku tudd yoonu murit tudd ko waaye bind na téere ci maahiyatul adab qiraatun fi falsafati ana bind téere bu ñuy wax al falsafa al kokkiya bind téere bu ñuy wax al cheikh ibrahima diop al mashari sira moom fakkirin fi baytin yatim qiraan ramziya bind téere bu ñuy wax ramziyatul xarakaati shakliya fi lluga al wolofiya bind téere bu ñuy wax al fikrun bisaaquhu wa taxawulaatuhu al jazariya daal di bind téere bu ñuy wax waaw yeneen téere yu baree baree bari bokk na ca bu ñuy wax muqawamaatu taqrib bayna al muslimin ala daw il manhajil murid yi waaye bu ñuy wax muqaddima fi l adabil ifriqi bind na téere bu ñuy wax at tarbiya inda cheikh al xadim dirasatun istikshafia téere boobu nag cheikh moustapha dafa def kéem kattanam ci lënkale pensée yoonu murid wi ñu nekk ak yeneen pensée yi nga xam ne moo am ci Afrique tàmbalee ko ci civilisation pharaonique daal di jaar ci civilisation Ghana ak civilisation Mali daal di wëyale ba àgg ci école Koma daal di wëyale noonu ba yegg ci école séréer bi nga xam ne am na ay buum yu ko lëkkale yu dëgër digganteem ak civilisation pharaonique gu yàgg googu nga xam ne mooy euh, pharaon yi nekkan ci Égypte. noonu Cheikh Moustapha bind na téere it ci soxnam jaariyatullah Mariama Bousso qiraa fi siiratihal atira waaye bind na yeneen ak yeneen yoo xamante ni bu ñu ko doon bëgg a lim fii dina jël suñu waxtu. taxawaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha Diop alkoki ñun de miin nañ ci moom te képp ku xam seex Moustapha miin na ci moom ne nit ku am ay principe la nit ku dëggu la boroom yitte ju kawe la ku ngoyaalu ci diineem la waaye ku fiir la ci ndonol seexul xadim lii te it borom mi valeur la valeur yu kawe kawe ku jeexitalu la ci valeur yi nga xam ne moom lañ jëlee ci cheikh si nga xam ne ñooy première génération bi Serigne Touba yaral boppam muy mag ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ak ña topp ca seen ginnaaw rawatina ñi nga xam ne moom Cheikh Moustapha jamonante na ak ñoom daan jaxasoog ñoom ba jël ci moom ñoom ay jikko ak valeur yu ama ama am solo ci noonu ci lan xame Cheikh Moustapha ci noonu ab taxawaayam mu donnoo ca ñoo ñële ku ko xam-xam ne du maslaa ci loo xamante nii dëgg la lépp lu nekk nam nekke dëgg fa moom noonu la koy jaare noonu la koy waxee Cheikh Moustapha ku ne xam-xam ne boroom ne xam-xam lu ba mag a mag a mag ku xóot ab gëstu la kuy delloo ak murit ci cosaan la la ci wàllum gëstu ak wàllu discours boroom niveau bu kawee kawe la waaye borom expérience la bu mag a mag a mag loolu li ñu lim nag moo waral xeetu waxinam am ak tabbi gu dëgër goo xamante ne saa bu tabbee ci xol rek daal di cay jeexital jeexital gu ama am am solo ngir lan ngir delloo murit bi ca la nga xam ne mooy cosaanam muy identité yoonu murit gan xamee woon murit yi ci jamonoy Serigne Touba ak ci ginnaaw bi noonu waxam ji dëgëree ba nga xam ne dina jeexital ci ki nga xam ne dafa bëgg lu baax noonu la wax ji ñëwee ci geneen wàll gi di déranger ki nga xam ne maanaam dafa jàpp ne yoon wi yoonu folklore la ak dañ koo war a mbubboo ngir di ci dund waaye du yoon wun war a dundal loolu moo tax nëbbuwut ci kenn seex Cheikh Moustapha boromi taxawaay yu ama am solo la ci yoonu murit taxawaay yooyu muy taxaw nag defu ko lu may ngir delloo murit gi rek ca cosaan la ci leeral li nga xam ne moom la seexul xadim nekkoon ak ña nga xam ne ñoom la yaraloon boppam di mag ña waaye leeralit li nga xam ne jamono jamono ju dox sos na ko ci biir yoon wi te bokku ci yooyu sëriñ Moustapha dafa laxasaayu ngir leeral ko loolee nga xam ne sëriñ Touba dañ na ca ba set ca wécc mboolem ñi sëriñ Touba yaroon ak doomam yi dañoon nañ ci ba set ci wécc loolu nag saa tegtalee mbir rek nañu xam ne lam tegtale mooy ne seex Moustapha ku dëggu la am murit saadiq la boo xamante ni ku dëggu ak jaayante la ku dëggal jaayante gim jaayante ak Cheikhul Khadim la waaye dinañ ci dégg ne Cheikh Moustapha ku fiir la ci ndonol sëriñ Touba waaye ku wogu la ku préparé la ngir défendre yoonu Serigne Touba wi ak lu mu mën a jur ci moom waaye fu mu toll dina ko défendre. wooteeb Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha ni ñu ko waxee léegi. wooteem bépp jëmalewu ko ci lu dut yeesal njàngaleem seexul xadiim yi nga xam ne moom la donnoo ci maamam yu baax yi nga xam ne Serigne Touba leen yaraloon boppam waaye naka noonu noonu la ko yeesale it jële ko ci way juram wu góor mu jële ko ci maamam di Cheikh manaar Diop Cheikh Moustapha ku ne xam na ne moom ku am expérience la ab aarif la boo xamante ni jaar na ci jaaruwaay yi ba am ci naanukaay naanin boo xamante ni mën naa jëleb taalibe teg ko ci yoon wa nga xam ne moom la sëriñ bëgg ba am ca moom la sëriñ Touba ba sëriñ am ci moom la mu bëgg loolu moo waral mu woote woote bu ama am solo woote boobu ay nit jug jaayante ngir sóobu yoon wa nga xam ne moom la sëriñ daan sóob mag ña di leen jaarale ci yoon ba def leen ni yonent bi bëgg ab jullit mel ni waaye ni suñu borom bëgg ab jullit dëgg-dëgg mel ni loolu yi ci la Seex Moustapha nekk loolu nag muy tarbiya googu muy def ak tarqiya mu ngi koy defee ci anam yu wuute bokk na ci rek li ñuy wax maanaam taqoo nga xam ne am na taalibe yi dañuy taqoo ak moom féete moom mu leen di tarbiya ni ko mag ñi daan defee waaye am na ñooñ dañuy socc ci moom di ñëw ci moom di dellu ca seeni kër sëriñ Moustapha ngir yombalal liggéey bu am solo boobu nga xam ne naalal na ko seexul xadim ci yoonam wi moo waral mu sos mu sos daara ju mag tudde ko faydu akaabiri saalihiin faydu akaabiri saalihiin googu di aw tur wu mag woo ni sëriñ Touba mu ko tuddee woon ba mu ñëwee ci Ceen Jolof njëkk muy ñëw njaarim tur woow yi seetlu nañ ne ba ko sëriñ Touba tuddee ba fii ñu eh, taxaw sëriñ Moustapha moo ko njëkk a feddali yeesalaat tur woow barkeeloo ko ci làmmiñu seexul xaddim bu tedd woo daara daaray faydul akaabiri saalihiin seex Moustapha sos ko mu làmboo ñaar fukki daara ak juróom-ñett daara yooyu di ab barkeelu boo xamante ni Serigne Touba moo ko rafaatale mu sos ko tàmbaleegun na ci ñaari daara benn bee ngi nekk fii ci patar benn bi mu ngi nekk ci Saate waaye daara yooyu bu ci nekk dinañ ca jàngal nit alquranul karim jàngal ko mboolem xeeti lakk yi muy français ak la ci aju jàngal ko xam-xam lu jëm ci technique ak lépp rek bépp xam-xam bu nu war xam ci kaw suuf ñu jàngal ko ca bu paree nag tarbiye ko tarqiye ko ba marale ko diggam ak boromam def ko ni nga xamante ni moom la Serigne Touba bëgg ci ab taalibe mu mel ni lii lépp booyee nag mboolem daayira fayd ak faydul xaniyil muxni ak mboolem ñi nga xam ne ñooy ay euh, jàngalekat ñoo de ay mbokkam ak mboolem soppe yi nga xam ne ñoo aju ci Cheikh Moustapha di soppeem yu ko bëgg topp ko ñu ngi xamle ne Cheikh Moustapha daaraam yii gratuite la képp koo xamante ni def ci daara ji du lu may joxe sa doom dellu Cheikh Moustapha moo la koy yoral yoral la dundam yoral lam njàngam yoral la colam ak lépp rek kon boo joxee sa dong sa dongo rek li ci des lépp maanaam moo ko warloo moo tax mbooloo moomu nag biñ xamlee loolu ñu ngi xamle ne mbooleem koo xamante ni ab jullit nga rawatina murit ñu ngi lay woo ci ay teggin yu nu gërëm jëmale ko ci borom xam-xam waaye jëmale ko ci ñi nga xam ne dañoo càllaloo ci kilifa yu mag yi di doomi seex yi ak sëti seex yi waaye ñi nga xam ne it dañoo càllaloo ci sëriñ Touba yoonu teggin woowu mooy li nga xam ne moom la sëriñ Touba sose woon yoonam wi jóge ca jawaab bi sëñ Mor Fallou sëy ja ba nga xamante ne laajoon nañ ko lan lan sose yoonam wi mu xamal leen ne mooy al ilmu naafi al amalu saalix al adabul mardi ñett yooyu daal ci la sëriñ Touba sos yoonam wi moo tax képp ku dégg ci mu Moustapha loo xamante ni méngoo wut ak la nga xam ak mu wut ak sab gis-gis kenn aaye wula de nga indi sa xalaat tontu ko waaye teg ko ci xam-xam indi ay preuve ak i dalil yu leer naññ waaye nag mbooloo mi ñu ngi xam le ne mayetuñ kenn mu jug romb fi xam-xam waaye jàkkaarloog jëmmi Seex Moustapha ji di ko teg ci deram ay saaga wala ay tuuma yoo xamante ni dañ koo fabriqué te ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxan na ne bokk na ci bàkkaar yi gën a mag saaga saaga sa way jur ñu ne kon yaa rasulallah ndax nit dina saaga way juram ñu ne waaw mooy boo saagaa way juru nit mu delloo la ko bu keroogee yow yaa saaga sa way jur kon yonante bi it daana xutba ba tàng jër daa di wax ne moytu leen seere ay neen sahaadatu zuur kon ñu ngi moytuloo mboolem waxambaane yi rawatina ñu bàyyi xel loolu ci jëmmi Cheikh Moustapha ji mbooloo mi xam ne xam ne képp ku ko jëfati ñu ngi xam ne mbooloo mi nga ko amlanteel waaye amlante woot ak Cheikh Moustapha ci ne réew mi yoon moo ko ŋànk dinañ dem ci yoon luñ ci am jël ci loolu nag ci la mbooloo mi di tëje seen kàddu yooyu di ñaanal alxalifa cheikh Mouhamadunil Muntaqa sun borom yàggal ko fi te wéral ko waaye yàggal fi mboolem njaboot njabootu cheikhul xadim te wéral leen di ñaan suñ borom it mu dëggal cheikh Mouhamadul Moustapha al kokki dimbali ko waaye ñu ngi ñaanit suñ borom mbooloo murit yi suñ borom dajale leen ci buumam gu dëgër googu nga xam ne lépp luy lor ak ñaawteef dina ko sori waaye yàlla na yàlla def mbooloo murid yi muy faxr ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk faxr ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy ñaanale mboolem jullit ñi ak lislaam suñ borom dëgëral leen moo xam ci penku lañ nekk moo xam ci saw di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ boole suñ borom dolli tedd nga ci moom te dolli ko euh, ngërëm ak yërmande wa agrinaa yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الشاكر الرحيم ذي الأزمان faydu akaabir saalihiin di seen youtube bi ngeen mën a toppee bépp liggéey bu jëm ci liggéey Cheikh Moustapha Diop Al Koki ngeen mën ñoo am ci facebook bi ci madrasatul qadimiya من أمر المنعم بالشكور سبحانه من رافع شكور